بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سلف بقاء بإيه لفيك يلاو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 مليك يميني وقل بزال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله نفسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابليال أمنا في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز لا في أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل الإداء بلاسي اللي اخترت يا الله أعوذ بالله بسم الله إن ولي الله نور فؤادي وليسرح صدري واجعل جهادي ka yawm badri wala barik fil banina wal banaat bi sooratin awal anaadiyaat mbokk jullit yi mbokk taalibe yi mbokk yi ñuy déglu ci àddina bi yëpp ñu ngi leen di nuyu baax a baax di leen siyaar di am contentement baax a baax ci bés bu tedd bii nga xam ni mooy bésu Serigne Dame Sall mu koy defal jëwrinam ba xaritam ba soppeem ba sëriñ mun a Mbàkke yàlla dogal tey jii ki toog ab tooguwaayam di sëñ Mbàkke moom sëñ may Moustapha a di ko seet si at mu nekk muy lu ñu am mbégte am ci contentement seen rajo Baol Média FM nag 97 point 1 di rajo bi nga xam ni moom la Baol di bàyyi xel ma ngi ànd ak yéen ci émission boobu ci waxtaan woowu ak ci ngan googu yaakaar naa ci bëccëg ba léegi ña ngi ko def en direct ci rajo ba mu fay jàll itam di jàll itam ci site internet bi incha allahu rabbi di ngeen ko am ni ngeen ko amee daaw ñu àndi fee tam ak suñu naataango Baye Cheikh Gayri Diall ak sëñ Ibrahima Khalil Diop ñu nekk ca Baol Média FM 97 point 1. mbokk yi Serigne Dame Sall nag bis bi bis bu màgg la bis bu tedd bis la boo xam ni itam nee na amul bis bu ko gën a féete kaw ci àddina ci moom. mooy bis bi nga xam ne ci la ko sëñ Mbàkke moom sëñ Moustapha may di seet si waa Touba Firdaws itam kontaan nañ ci loon am ay kilifa yu fi teew nag yoo xam ni fas na ni yéen a jàllale incha allahu rabbi doo ko jox sëriñ Dame Sall mu yëkkati kàddoom digganteem ak sëñ bi bu pare wala su noppee incha allah ñu jox kàddu gi euh, sëriñ bi muy sëñ Mbaye si la mi nga xam ni mooy yor kàddu sëriñ bi incha allahu rabbi xam naa ni dañuy njëkkante ak waxtu wi rek. délégation bi nga xam ne moom la sëñ Mbàkke moom sëñ saamay àndal ñu ngi ciy jiital ku ci mel ni sëriñ Mbay Gay Si la muy ku ñëpp xam ci àddina bi di soldaar Seexul Xadiim nga xam ne lépp lu jóg ci yoonu murit dañuy gis na mu koy défendre rawatina nag lépp lu dal ci njabootu maam Ceerno Birahim Faati Mbàkke waaye itam ak ku ñu wax sëriñ Jili Mbàkke moom sëriñ mu na waaye itam ak ku wax sëriñ Mahmadan Mbàkke teew na waaye mbokk yi ku di wax itam Serigne Moustapha Mbacke di sëtub Cheikh Abdoul Khoudous Mbacke ma ngi ci jataay bi waaye mbokk yi Serigne Ahmadou mbakke di sëtub Serigne Abdoul Khoudous Mbacke moom it ma ngi ci jataay bi waaye itam ku ni wax Serigne Abdoul Khoudous Mbacke moom Serigne Moustapha Maymouna Mbacke ma ngi ci jataay bi waaye itam Serigne Cheikhouna Mbacke moom Serigne Khalil Mbacke ma ngi ci jataay bi waaye mbokk yi ku ni wax sëriñ Abdou Mbacke moom sëñ Xalil Mbacke ma ci jataay bi waaye itam ku ñuy wax soxna Toora Mbacke moom itam ma ngi ci jataay bi waaye itam noonu la sëñ bi ànd ak délégation bu mag délégation bu mag boo xam ne ba tey ku ñuy wax soxna maam tuuti mba soxna maam tuuti ñang moom itam ma ngi ci jataay bi waaye itam ku ñuy wax soxna may muunatu Mbacke moom sëñ Mbacke ma ngi ci jataay bi waaye ku ñuy wax sëriñ Muudu Mbacke Bali moom itam ànd na ci délégation boobu waaye itam ku ñuy wax Serigne Moustapha Bousso moom itam ànd na ci délégation boobu waaye itam ku ñuy wax Serigne Moudou Habib Sall Silla Serigne Moudou Habib Silla moom itam ma ngi ci jataay boobu waaye itam ku ñuy wax Serigne Baye Ndiaga Silla moom itam ma ngi ci jataay boobu waaye itam ku ñuy wax Serigne Moustapha Mbacke moom Serigne Mbacke. moom itam ma ngi ci jataay bi waaye Serigne Khalil Mbacke moom Serigne Mbacke moom itam ma ngi ci jataay bi waaye itam Serigne si Serigne si Seydina Mbacke ñu naan Serigne Seydina Mbacke moom itam ànd na ci délégation boobu waaye Serigne Abdoul Khoudous Lo moom itam ànd na ci délégation boobu waaye itam Serigne Moudou Habib Diouf nga xam ni mooy président fédération Kër Sëñ Moustapha Maymuna Mbacke gépp moom itam ànd na ci délégation boobu waaye itam Serigne Ousmane Ndiaye. nga xam ne mooy porte parole fédération bi moom itam ànd na ci délégation boobu waaye Serigne Moudou Balla Mbacké moom itam ànd na ci délégation boobu mbokk yi waaye itam sëriñ Cheikh Ahmadou Boussa moom itam ànd na ci délégation boobu nga xam ni ñoo ànd ak Serigne Mbacké moom sëñ Moustapha Maymouna kon rek mbokk yi day mel ni sëñ Mbacké bàyyiwul fenn bàyyiwul kenn ci ay mbokkam ak ay rakkam waaye itam ak ay jarbaatam ak ay doomam ñëpp ñëw nañ macha allah fa tabarakallah waaye itam ku ni wax sëriñ Gunda Fall moom teew na fi teew fi ci turu mbooleem képp koo xam ne ab Baay Faal nga ci yoonu murit sëñ Gunda teewal na la fi ci turu sëñ Dam Sall nii waaye itam ku ni wax sëriñ Abdou Ahad Mbakke bokk ci waa kër Mamor Diarra Mbakke moom itam ma ngi ci jataay bi kon mbokk yi ñii ñooy ñi xam ni ay kilifa la yu ñu mënu woon a bañ tudd ñoo xam ne bàyyi koo naan ci ay gox yu fosanti ko ci àddina bi yëpp waaye rawat na ci Touba yëpp waaye itam ku ci mel ni Serigne Mbaye Sall fële ca Touba Mbëbëril moom itam teew na ci jataay bi ak yeneen i kilifa yoo xam ni xam naa ni xam nañ ni teew nañ ci bi ak ñi nga itam donte tudd ñu seen tur itam bàyyi sant leen baax a baax ndax da mën a lim ñëpp. wajal bi jaahi axira kalaami laa ilaaha illallah muhammad rasulullahi mbokki jullit yi ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak ci santam di leen baalu àq te di leen baal àq ngir jëmi xaadimu sol di leen sant bu baax a baax a baax ci woote ki nga xam ne moom laa woote te ñëpp wuy si ma wuy si boo xam ne sax kawe na sama njort waaye nag loolu moom na ngeen xam ne képp ku wuy si sëñ daam nga wuy si waaye dafa mel ni sa bopp nga wuy sil ndax woote moom lépp sëriñ tubaa la ci sëñ bi la tàmbalee te ci la yem waaye nag damay am bànneex lool ci ma wooteel sama sang bu tedd ba nga xam ne awma lenn awma kenn ku may moom nga xam ne lépp lu ma am rek moom la ma di ko sant ci ab ruq di ko ñaanal ci ruq ba dem ba xam ne xajatut ci ruq ma génne ko ci ëtt bi dem ba xam ne xajatut ci ëtt may naa ko génne nag àddina bépp jariñu ci te am na lu ñu façon ci bis bii te am nañ rafet njortu ci ne sëñ bi moom nangu nañu ko loolu moom amuñu ci sikki sàkk ndax du luñ làmbatu ndax fu ma ko mos a woo rek sëñ mustafaa fu ma ko mos a woo rek wuyu na ma sëñ Moustapha fu ma ko mos a na ma bis bi nag lépp mooma ma ngi sant yéen mbokki dëkkandoo yëpp ci ni ngeen taxawee ci liggéey bi waaye noo ngi sant mbokki bopp yi ak ni ñu wuysee ak mbokki taalibe yi nga xam ne dañoo bokk ak ñoom sëñ Tuubaa ma leeral tuuti rek ci li waral bis bi ni ma ko waxee daaw rek ndax boo woowee ay nit ñëpp dagg seeni yitte ñëw wuy si la danga leen di leeral la tax nga woo leen bañ xam ne li ngay woote yàlla na te yey na man sëñ Moustapha su ma daggoon sama yaram def ko ay saam séddale ko du tax sax sant gi ma koy sant ma jot a xam ndax su ma su ma taxawee fii tey di woote moom jëmmam la te danaa leen ci wax lu tuuti loo xam ne dangeen ngeen daal di mën a teg seen baaraam ci ne man su ma wootee fii jëmmam la kenn ci samay soxna muy soxna na koy faal mën na koo seere toog naa ay guddi yoo xam ne dama toog wéet ci sama barab di ñaan yàlla ba am benn bis ma xaabaabal xaabaabal na mooy jéggi dayo daanaka xam war ngeen ko xam fa ma toog ma laaj Sëriñ Tuubaa ne ko damay laaj ba xam yoon yu ma nekk ndax tegu na ci yoonu siraatul mustaqima wala déet waaye Mbàkke damaa bëgg nga leeral ma ko leeral goo xam ne duma ci am ci sàkka fi ma toogee def loolu ci diir bu gàtt ma gis néeg bi ma toog am geneen leer goo xam ne leer gu kaleer la ci biir néeg bi ma jàpp ne làmp buy tàkk la ma geesu gis gis néeg bi ubbee ma wàññeeku ko xool sama kanam gis jëmmi siriñ Tubaa taxaw ci sama kanam te du gént bi sëñ Tuubaa taxawee sama kanam maam Cheikh Rafal teg ñaari tànk ci mbagg yi di dugg ci moom étape par étape foofu nag ma tàggoog sama ma tàggoog sama sago daal di daanu ci suuf daldi ñaan suñu borom ne ko bu ma xëyee buñ xëyee nañ fekk ma faatu waaye yëmu ca loola damaa takk sama ñaari baaraam yi tànk ni ñuy def ko faatu sama ñaari baaraam yi takk sama ñaari baaraam yi loxo ñaan yàlla ne ko ne ko nag bu ñu xëyee nañ fekk ma faatu. te bi ma ko waxee it amoon naa rafet njort ci ne buñ xëyee dañuy fekk ma faatu ndax bi ma ko defee ci sama wetu ndeyjoor am na kuréel boo xam ne ñu ngi naan wali ya jut wali la si dahaani li nas mi bil am ni wa ridwaani bu bii kuréel ne wali ya jut wali la si dahaani kuréel ci wet gi ne wali wali yu jut wali si dahaani bee kuréel li nas mi am ni wa ridwaani te biñ koy wax gëttu curaay gu xas gu goo xam ne ni muy ni muy duggee ci sama yaram wi ak sama bakkan yi maanaam jéggi na dayoo nga xam man jàpp naa ne malaayka miy rocc sama ruugi moom ay minute lay xaar waaye agsi na waaw na ngeen dégg li ma leen wax bu baax a baax a baax ci ci sama diggante sëñ Moustapha rek laay wax bi may def noonu di ko dégg di ko dégg ba yàlla dogal man ma nelaw bi ñu bi ñu salaatoo ma dégg nodd gi ci laa ne bëri di yow daal di tekki sama ñaari tànk tekki sama ñaari loxo waaye loolu ànd ak man nag ànd ak man lu mat ay bis yoo xam ne fu ma wéete kuréel boobu maa ngi dégg ñu wax ak man ma dem ba bëggatumaa gis doomu aadama waaye bëggatumaa nekk ci àddina saa bu may tëdd damay ñaan yàlla faatu bi ma demee ba xam ne man mënumaa faatu te li may dégg sonal na ma te mënatumaa jaxasoo nit ñi sama soxna see damaa dem ba benn néeg laa damaa xaaj néeg bi ci digg bi ne ko genn wàll gi yaa ko moom genn wàll gi maa ko moom teg paaka ci sama sama fi ma nekk ne sama sama sama côté nag moom boo mooy rey naa la kon xam ngeen ne kooku mu jàll na moom ku dem ku dem ba xaaj sam néeg ne sa soxna xaaj bi boo ci jaaree rey naa la ndax xaaj bi ma gisee sëñ tubaa moytuma jigéen mu di fi teg tànkam te bëgguma ko am di fi teg sa tànk bi ma demee ba sonn ma jóge ma dem ci sëñ Moustapha bi ma demee ne ko Mbàkke de man damaa sonn lool mu ne ma loolu sonnal ma ne ko fi mu ne dama doon ñaan yàlla jóge fi waaye dafa mel ni mënoo fee jóge sëñ Moustapha ne ma loo ci jublu maa ko dafa am lu ma laaj sëñ Tuubaa mu leeral ma ko leeral gu leer nañ te bëggatuma fee toog di yàqute mu ne ma da yaakaar ne yaa fi indi sa bopp ba di fi jële sa bopp yow li nga war a liggéey sëñ Tuubaa da nga cee defagun dara daal li may laaj ne ma noo ko gisee ma leeral ko mu ne ma kon benn yoon boobu doom nga mas a gis sëñ Tuubaa ma ne ko Mbàkke mu ne ma de saa moo ko bëggee gis ko daal li ma koy laajaat ma wax ko mu yëkkati boppam teg ko sama loxo mu laaj ma ko ma baamtu ko mu teggiwaat daal di muñ dellu ma ko laajaat bi mu àggee ñetti yoon bi mu teggee loxoom déggatuma dara ba fi mu ne toll déggatuma leen kon foofu kon kon foofu atool waaw waaw kon kon war ngeen a xam ne bis bii kon war ngeen a xam ne bis bii bisu sëñ Moustapha la bis bii te te li ma wóor mooy bu ma sëñ bi wàññikutoon su ma sëñ bi wàññikutoon da nga ne faatu naa kon sel yell na yell na man ma sant sëñ Moustapha waaw ah. yàlla na ma sant sëñ Moustapha maam li wa li waral li ndax bis boo wooxee nit war nga koo leeral li tax nga ngay woote man li may woote man xam naa ko xam naa ko bu baax a baax a baax a baax man su su ma reyoon sama ndey sama baay rey sama bopp sarxe ko taxul ma jot sëñ Moustapha May xam naa ne xam naa ne li ma xam naa xam naa ne ma bëgg a wax du ma ko mën a wax xam naa oustaz dama lay dama lay jox kàddu kenn nga nga nga àggale ma de waat xam naa man du ma mën a du ma mën a sori tey xam naa ne. na ci fas yéenee taatan ba mën a duy sëyëf mën a yóbbaale. te xam ne bisub tey bii bis bu ñuy duyee la ndax euh, yow li nga wax léegi ci sëñ Muntaxa li li nga koy ñaanal moom ngay ñaanal sëñ Mbàkke gi nga sëñ Mbàkke mii géej gii di géejug sëriñ Tuubaa gi ci biir la woon. sëñ Mbàkke Buso mais maamam waral lépp ak Cheikh Ibra Faty ak sëriñ Touba kon tey mag ci mag ko ci lañ ci mën a wax waaye gën koo jege Serigne Touba ku Serigne Touba jurut xamuñu ko ci yow ndax koo xam ne maanaam sa maam ak Cheikh Abdou Khadir ñoo bokk ndey ak baay sa maam liggéeyal Serigne Touba ba Serigne Touba tudde ko ay doom muy soxna May kenn déggut ku Serigne Touba tudde doom ku du Rasulullah sallallahu taala alayhi wa soxna May képp la fi tudde doom ba soxna may tey lañ ko fi tuddee defe naa ni ëpp na fukki junni ca ngërëm lu lu ko sëñ Tuubaa gërëm képp a ko waral muy maamam baayam am ngërëm loo xam ne ci yàlla ak yonante bi ak sëriñ Tuubaa man mii di wax ak yéen day li ma yor lépp moo ma ko jox ca wóor na yàlla ni kero bi muy dem damaa tëdd ba tàkkusaan ma ni bëreet jóg sama waa kër ni ma lu ma doon mën leen damaa tiit ñu ne ma lu mu man leen man kat mel ni léegi dañ ma yonente bi dafa dem yonente bi dem na loolu jaaxal ma nii si gis rek am taalibe bu ma woo ni ma damaa bëgg ñu daje daaru nangu maax lu leer ma woo leen ñoom ñi ñëpp ku ma woo nga ne ma jàmm rek a fi xew ma dégg ca mbedd ma am ñu ne ah ñeme ko ko wax de nga xam ni kero booy mi muy dem loolu laa gis man ci tàkkusaan gi nelawuma yonente bi dem na léegi kon kii ab sëriñ la boo xam ni nun ñii nga xam ne nun ñëpp mooy sunub sëriñ sëñ daam li nga xam ne maanaam kenn ku ne nag naan sama sëriñ jàggee la róor ab sëriñam daa bokkut ak sëriñ si sëñ Moustapha may képp koo xam ne sëñ Touba juru la moo la féete kaw ca képp ku sëñ Touba jur it jox nga ko cër boo xam ne xam nga ni lii ngay wut lu ko mu ci àndut mën naa sikk loolu man mën naa ko waat foofu la sëñ Moustapha may toll woon kon sëñ Jaab bii ab sëriñam mooy sëriñum ñëpp ku ko xam ak ku xamut la ñuy wax démb am na soxna su ma woo ni ma damay génn sëñ Moustapha may lu toll ci ay fan ba yàlla dogal nu xamante maa ak yow ndeke mooy sa sëriñ te dama ko doon ñaanal kooko nga xam ni kon doom yi ba faal la maa ngi koy nettali sëñ bi léegi waaye nun taalibe yi na leen wàññi ko waat gën a laxasaayu waat ci li nu yàlla digal ci ñu jaamu ko ak ñu topp ko ak topp sëriñ bi ndax kenn ku ne am nga compte banque ci sa digganteeg Serigne Touba am nga compte banque sa digganteek yàlla sa diggante yàlla mooy Serigne Touba rek. kon nag nun ñi nga xam ne tey noonu am compte muy kenn ku ne sa compte fa nga ko am képp koo xam ne da ngaa yor sa compte war nga di ko renouveler di xool laa ca defarin ba déwén. kon war nañ bën xëyee ba jant bi so suñu borom lim nu digal lu xam ba xam nun ci def ak sëñ bi lim nu digal ren ba déwén lan laa joxe ci kër sëñ bi. nan leen yokkaat suñ mbir ca xam ne bu nax suñ bopp lan moo fi ne tey la sëñ mag ñi doon am démb buñ ko doxee tey danañ ko am sunub sëriñ a ngi nii jege sëriñ Touba jege borom daaru musi ki nga xam ne mooy doxal di jorul borom daaru loxoom doon sëriñ Touba muy Cheikh Dofaati ñaari maamam yëpp muy ñetti maamam yëpp sëñ Mbàkke Bousso bi waral mbir mi Cheikh Dofaati sëriñ Touba soxna May ak baayam sëñ Moustapha ak mbirum boppam mi nga xam ne moom bu ko sëñ bi jurul woon jikkoy boppam képp ak pas-pasam ak ngërëmam mën na ko yóbbu fu ne. ndax jamono dafa xew sëriñ su bari ñoo ci dégg ñu ci ëpp ñu ngi ci politique Moustapha Niass di loxol di loxoom di xaritam di léppam waaye gisulu ko lenn moom lenn képp la gis sëriñ Tuubaa ak borom Daaru Musi gisul loxo gisul loolu kenn tey bu fekkoon ne daa bokkul ci sëriñ soosa kon tey bu dee lu ñu am ci saa yi am na ci leneen waaye saa yi lim ci am ak baatin moo ëpp la ndax tey jii bi fi bàyyi jógee taxaw na taxawaay boo xam ne nii nun ñëpp. kenn ku ci nekk doon nga jaay sëñ Moustapha may waaye léegi suñuy jooy far na ngir moom bi kon nun ñëpp dañ leen ko ñaanal mu gudd fan ca wér ak njabootu sëñ Moustapha may gépp ca xam ne mboolem luñ bëgg di sëñ Moustapha may ak luñ ci doon wut suñ ko tàllalee ci moom daañ ko am ndax am na ngërëmul baayam am ngërëmul maamam am ngërëmul ndeyam kon nag nun taalibi dañ doon yokkaat sunu laxasaay yokkaat sunu taalibe gën a soo ci moom lu mu digal ñu ko lu mu ñu tere ba te nun kenn ku ci nekk denc nga loo xam ne ci sa kër tey bu sëñ bi laajee woon junni téeméer ngay joxe ca kon nañ leen jógaat nañ leen waajaat jumaa ji mu naal yàgg na booba ba fi mu ne nii ca war na menn at rek ñu mën ko cee def ndax li ma mën a waan mooy kër gi li ko yaakaar ak li yaakaar suñu kër bu ñu ko seetee ëpp na ñaari junni nit waaye ñaari junni nit bu kenn ko ne def rukki junni ba nëgë ni kon waxuñu loolu ah saa bu nu wootee nun ñëpp kenn ku ne dañ garab yooxu ni bi nañ leen jogaat nañ leen waajaat ca xam suñu bopp ca xam ne kenn ku ci nekk bis pénc la nga fay soxla ci lu baax fii rek nga ko mën a jëfe képp ku la raw ci sëriñ Touba ci nangu laa joxe addiya nangu laa gën a jaamoo yàlla dana la raw tey ak ëllëg ca kenn du ci mën dara kon nag loolu nan ko xam nan ko jàpp sëñ daam nag jëf waaw góor lii nga jàpp continuer ko lii rek mooy mbir mi ndax bari ñëf ñu woote ay bis di ca def lu ne di ko doxe nu ne ca wowuñu kenn wowuñu yàlla wowuñu yonente wowuñu séerub sëriñ yow da nga noo jaajaat ndax nun ñëpp kenn ku ci ne war ngaa wut bis boo xam ne bis bi saa bu ñëwatee nga wut sa sëriñ bii mu ñëw teew ànd ak bokkam yi ak taalibe yi ndax fii mu yenu tey ne la woon ni cëggu bés la boo xam ne dana la fi tuural loo xam ne nii mënee su la ko wax loolu kenn nattable ko ndax ñoom wóor na ma ne fu ñu fu ñu yenn wala fu ñu fanaan sëñ Tuubaa nga fa borom daaru nga fa sëñ Mbàkke Busaa nga fa ca loolu képp la ñuy kon nag ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ñaanal di ñaanal sëñ Mbàkke yàgg fi ci wér man bala maa ñeel sëñ Abbas di ñaanal sëñ Muxtaar kii laay ñaanal man sama buntu mooy kii moo ma gënal sëñ Muntaxa moo ma gënal sëñ Abbas kii mooy sëriñ Tuubaa ci man xooluma keneen ku may ñaanal kii lay ñaanal yow foofu nga xool loolu lañ gis gisuñu keneen li ñu gis nag kenn ku ne gis nga ko fa nekk waaye nag kenn ku ne gën nag daa am baax am na waaye gën ndun liñ yor dafa gën loolu mooy li sëñ sofaa may kenn ku mel ni moom ci yoonu murit amut woon loolu la yàlla dogal sëñ moo Maodo Habib Kasalika kon nag moom it ngor gi mu am taalibe gi am baax gi nga xam ne yore na ko ak dumbooyu gim dumbooyu maanaam àddina jëm ci yàlla képp loolu dafa doy nun ñi comme ci doonoon ba ba nëgëri tey ji taalal nga gouvernement bi loxo waaye moom benn góor gouvernement muy Serigne baax kon nag ñi ngi leen di sant ñi ngi leen di gërëm ñi ngi leen di ñaanal bis bi yàlla yàgg ci dara ji sëñ bi jërë ngeen jëfa بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله اكسنيل أقدار يلاو سرز بقاء بإيه لفيك يلاو بسم الله يكفيني أقدار يلاو سرز بقاء بإيه لفيك يلاو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 أنزاري مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله أنزاري مراسي أرجو برامتي ألا ألاقي درا منك يا الله مليك يميني وقل مثال يا مليك بلا إسان بن بيجو دين منك يا الله خدست سري يا قدوس متليا أني وأن كردي تدار يا الله نفسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله أنت سلام لاسي سلمت كل يوم ويا بنفسي بيتي إن منك يا الله يا مؤمن في جنة بدر ما كدار وابليال أمنا في الدارين يا الله وبالمؤمن لس أبي استرايك ما خبيت سرا إلى الجماعة يا الله أنت العزيز لا في أطيب إيستي إذا يقال لدول التكريم يا الله أجبرت لي إنك الجبار دون لقم كل انقضاء بلا سي لاخترت يا الله